ne bokk na ci waxi sëriñ bi mu ne woon yonante bi day la dale ci aadama mi njëkk di ab yonante ba ci Iisaa mi nga xam ne ci moom la Muhammad topp la dale ci aadama ba ci Iisaa moomu ci ay yonante dañoo mel ne dañu di ay ndawam yoo xam ne moom yonante bi moo leen yabaloon ñu jiitu si ko ci tool bi bala moo dikk mel ni daal dañu di ay jëwriñam mu yebal leen nag ne leen jiitu leen ma ca tool ba ma ñëw gannaaw bi yonent bi ñëwee ba dem itam nee na ñu ñëwaat ci gannaawam ci ay xeeti wàllu yoog xeeti gaay yàlla yu mag a mag dañu di ñoo xam ne moo leen batale gannaawam moom yonante bi ne leen ne leen taxawul leen ma sama lislaam ji nga xam ne kon lu jiitu yonante bi rek ci ay yonante moo leen yabaloon ñu mel ni ay jëwriñ di ko jiitu si ci tool bi gannaawam ñu ñëwaat ci gannaawam ci ay xeeti wal yoog xeeti gaay yàlla yu mag a mag dañu di ñoo xam ne moo leen batale gannaawam moom yonent bi ne leen taxawul leen ma sama lislaam jii nga xam ne kon lu jiitu yonent bi rek ci ay yonente moo leen yabaloon ñu mel ni ay jëwriñ di ko jiitu si ci tool bi gannaaw it ñu ñëwaat ci ay gaa yu baax moo leen doyloo wax leen ñu taxawul ko tool bi ko yàlla jox muy toolub lislaam ñu sàmm ko ko watul ko ko ba dara du ko